kon nag nun ñii lu ñuy doyati doyati. sañ noo sañ sañ sañ noo delloo suñu bopp ci moom. sañ noo delloo suñu bopp ci sëriñ bi. kon bu ñuy ñaan itam. kon bu ñuy ñaan itam. ñaan ci barkeem. ñaan ci barkeem. suñu borom ja adduna am na tolluwaay ne. suñu borom am na tolluwaay ci adduna fi ne. kon loolu dañuy ñaan suñu borom. kon dañuy ñaan suñu borom. ci barkeeb sëriñ bi. ci barkeeb sëriñ bi. sëriñ suñu borom jëlee fi mbas mi. suñu bi suñu borom jëlee fi mi.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 la bëggoon ñoom parce que nu fas ci li ñu li ñu li ñu bëgg ñun nu bëgg ñun ñëpp ñu liggéey liggéey bi ñu liggéey liggéey bi waaye mel na ne waaye mel na ne kenn bàyyiwu ko sa morom kenn bàyyiwu ko sa morom bàyyiwuñ ko jàngkat yi bàyyiwuñ ko jàngkat yi kenn bàyyiwu ko sa morom kenn bàyyiwu ko sa morom kon loolu alhamdulilah kon loolu alhamdulilah rabbil loolu rek lañ ci bëggoon loolu lañ ci bëggoon nanu delluwaat ci suñu sëriñ bi rek nanu delluwaat ci sëriñ bi rek suñu lépp te loolu lépp. nu yem nu ko ci moom. nu yemale ko ci sëriñ bi. waaye jaam na sañ naa ñaan moom. waaye jaam nag sañ naa ñaan moom. suñu ay jaam rek la noonu. dafa ay jaam rek la noonu. moom suñu doom dañoo bind. suñu suñu borom dañoo bind. mu di jaamam. mu di ay jaamam. mu andi nu fi. mu andi nu fi. dinu jaamuloo. dinu jaamuloo. loolu moom suñu yoon nekku ci. loolu moom suñu yoon nekku ci. yàlla mënu nu moom. yàlla mënu moom. moonu moonu moonu fendi. moonu fendi. sakk nu. sakk nu dinu jaamuloo. dinu jaamuloo. kon jaam gi mun la ñàkk. kon jaam gi mun la ñàkk jaamu gi mun la ñàkk. jaamu gi la ñàkk. waaye nag loolu lépp. waaye loolu lépp.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 الكتاب والحديث السلام إلى الجبال